mbokk yi jàngeen jëf jamono ji politique bu senegal moo ngi soog a neex ki nga xam ne mooy Déthié Fall daal dinay publier ci page Facebook am xamle ne tey jii gise na ak xaritam magam di Ousmane Sonko ba toog nañu waxtaan waxtaan wu yaatu wu toll ci ñaari waxtu ñu weccante ay xalaat ak kàddu yu am am solo ba tax sax mu xam le ne àllarba bi ñu jëm dina amal benn point de presse jamono ji li nga xam ne moo neexal politique bu Sénégal def actualité lool ci réew mi mooy ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko daal di ne sàkku débat public ak ki nga xam ne moo fi nekkoon premier ministre di Amadou Ba. mu nekk loo xam ne jamono jii mën naa ne foo tourné ci internet bi moom ngay gis moo tax amaru Ba nee naa ko su doon maa yow damay dem ndax Ousmane Sonko ñëpp dafa bàyyi tànn la xanaa xamoon sax mi ngi lay defal promotion ndax jamono ji foo tourné yaa ngi gis photo Amadou Ba ak Ousmane Sonko. mu nekk loo xam ne su amee wax dëgg yàlla dana nekk loo xam ne lu neex lay nekk xam it dana feeñ. damay wax ne ñun Sénégal lii lañ soxla mooy réew moo xam ne dañu waxtaanee xam-xam ba ñu waxtaanee leneen loo xam ne amuluñu benn njariñ te loolu boo amee dana nekk loo xam ne wax dëgg fi yàlla Sénégal yi danañ ko rafetlu lool. kon amul ba ñu ngi lay xaar nga def ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko débat public boo xam ne bu amul fenn lay nekk. beneen bi nga xam ne moo si gën a neex ki nga xam ne mooy DC bu ASER di Jean Michel di dinay publier ci Facebook am di xamle ne. kii di Thierno Alassane gis naa ne kat bëgg nga lu leer ci coowul ACHR bi maa ngi sàkku ñu def débat loolu nag nekk na loo xam ne jamono it def na actualité lool man it maa ngi sàkku ki nga xam ne mooy Thierno Alassane Sall mu dem wuyu ji ki nga xam ne mooy DC bu ACHR di cent vingt-sept seen lii nag sëñ bi moom lañ soxla ci réew mi ay débat yoo xam ne xam-xam day génn ay débat yu am niveau réew mi nag mi ngi soog a neex